sabul ka sama mbokku balante ba col na ga alla bagin mbadi mbandi kool ana ka moy laal mbal konton na mbal jay laal se wota baake bandiraaɓe sehlaaɓe mi salmini on fogole seereer maxey simna nuun sama mbokku manjaak yi maa leen di wax bu tàkkaloo sama mbokku mankaañ yi sant di leen suñu mbokku saraxule yi ñu leen di wax ani soxoma yaakaar naa ne fàttewuma kenn fàttewuñ kenn merci beaucoup merci beaucoup xam leen man mënuma leen d'abord maa ngi nuyu monsieur le premier ministre muy candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar monsieur Amadou Ba ñu ngi koy nuyu bu di kontaan lool ci teewaayam fii di nuyu également ministre yu nga xam ne ñu ngi fi toog di nuyu suñu xarit Abdoulaye Baldé nga xam ne wax dëgg yàlla taxawaayam rafet na moom moo tax ba ñu intégré l'international démocratique centriste monsieur Abdoulaye Baldé ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu madame le ministre Annette Seck Ndiaye ñu ngi koy nuyu bu baax suñu sœur bu baax la moom mooy suñu ministre ci région de Sédhiou di nuyu également kilifa yu fi teew yépp ñu ngi nuyu le président du conseil départemental de Goudomp monsieur Bouka Moussa Bokoum ak maire yu nga xam ne ñu ngi fi di nuyu monsieur le maire de Djibanar di nuyu monsieur le maire de Diendé di nuyu monsieur le maire de Bogal di nuyu monsieur le maire de Ndiamakuta di nuyu monsieur le maire de Djiréji di nuyu monsieur le maire de Saly Escale di nuyu honorable député yu nga xam ne ñi ngi fi di nuyu kilifa yu fi teew yépp ñi ngi nuyu suñu xarit honorable député Abdoulaye Diagne ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu le DG de l'ASPT Pape Mahawa Diouf di nuyu également le président du conseil d'administration de la SAPCO docteur Amadou Tidiane Diba di nuyu également PCSU ASPT merci beaucoup merci beaucoup monsieur Thiaye Diaby di nuyu kilifa yu fi teew yëpp ñi ngi également kilifa diine yu nga xam ne bàyyi lépp ñëw teewee ndaje bi wax dëgg yàlla amuñ seeni fay mais ñun ñu ngi kontaan jël kaddu tey pour sargal son excellence le président de la république Macky Sall dama bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax tey tey tey bés bu màgg la ñu ngi feete suñ juróomeeli anniversaire bu parti synergie pour un développement durable SDD yoonu naataange ñu yegsee fii tey suñu yegsee fii tey gannaaw yàlla du man mais yéen ñii la militant yi yéen yéen a tax ñu yegg si fii donc man awma seen am na ñu nga xam ne man gis naa ñu nga xam ne huit si suba leen ñëw fii Grand Théâtre ñu bëri amaana sax ñibbi neen parce que si suba ba tey ñu ngi fii taxaw man aw ma seen fay dama leen di bàyyeeg allahu subhanahu wa taala am fay donc maa ngi di gërëm bu baax parce que teen wax la in zakartum la azidannakum te wax ne ne également man lam yaskuru naasu la yaskuru la donc man il faut ma gërëm leen bu baax merci beaucoup jeunesse bi merci merci merci ju dégloo lu may wax dafa am solo lan moo tax ñu ne dañu sargal son excellence le président la république Macky Sall man yàlla dogal na bu ma duggee ci politique yàggul ñun ñu ngi dugg ci politique en 2018 waaye buñ tàmbalee ànd ak moom ba tey dañu ànd ci ngor ak teraanga mu respecté ñu lool donc ak lum mu jot a def ci réew mi fii Sénégal si douze ans wax dëgg yàlla loolu gisuñ beneen président de la république bu nga xam ne def na ko sur tous les plans nag est-ce que Sénégal amoon na terre est-ce que xalaatoon neen en BRT stade Maître Abdoulaye Wade amoon na fi jàmm ju am Sénégal rek dafa doy nous sommes entourés par une ceinture de feu Sénégal jamono ji découvrir neen pétrole découvrir gaz suñ amuloon président bu nga xam ne wax dëgg yàlla taxaw na bu baax konoon jamono ji maaretali son excellence le président de la République Macky Sall m'a fait confiance pour la première fois en me nommant directeur des infrastructures aéroportuaires du Sénégal a abouti à la reconstruction de l'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis nga xam ne mettre nañ ko en service en date du décembre dernier ñu ne déet na waay mu ñëw nañu Souleymane renouveler naa la sama confiance fal naa la à la tête de la société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal ñun ñun nag ay góor leen te góor moom doo wor doo fen man xam ngeen ma yen militant yi ku ma wax lu ma munul dama lay naan munu ma de mais lépp lu ma wax dama koy def parce que den wax ne den wax ne den wax ne ñu déglu ñu dégloo ñu dégloo den wax ne jaa al haqu baatulu innal baatila kaana zawuqa su dëgg ñëwee su dëgg fen day randu ñëpp xam na ne ñëpp xam na ne allahu subhanahu wa taala moom kese moom mooy joxe nguur de moom moo ko xuli allahuma malikal mulki tuutil mulka man tasha kenn mënul am nguur ci pexe kenn mënul am nguur ci fen kenn mënul am nguur ci violence nguur ci luñ ko mën a amee mooy lan mooy yàlla yàlla tudd ko su ko yàlla tuddee loolu ku ci mën dara yàlla moom mooy faxaalun lima maa yàlla maa tayam la yor yàlla maa tayam la yor nest man lu ma leen jox amul kenn kenn kenn kenn ku fi taxaw si mbooloo mi ne jox naa ko cent franc pour nga ñëw taxaw fii déedéet amul da ngeen ñëw da ngeen ñëw braver chaleur bi lu may wax dafa am solo lu may wax dafa am solo xam nga ku mobilise rek ñu ne da ngay fay ay nit man de amul kenn ku ma mën a fay te nit kenn mënu ko jënd sénégalais yi jamono ji dañoo conscient kenn mënu leen nax man nag dëgg laa ànd ak moo tax fu ma leen woo noo leen di def kon jeex na jeex na jeex na jeex na ñi ngi nuyu ñi ngi nuyu présence su ministre Mor Ngom wax dëgg yàlla ñu ngi koy gërëm bu baax ku nga xam ne la suñ grand frère la daf ñu conseiller ci bépp fànn ñu ngi nuyu également monsieur le ministre Augustin Tine seen teewaay rafet na te kontaan naa ci lool waaye balaa may continuer dama bëgg ñu jox cadeau bu STD préparel son excellence le président de la république Macky Sall ñu jox ko monsieur le premier ministre par yàlla dogal na moom le président Macky tànn pour que mu doon candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar ñun nag yàlla dogal na ñun duñu naxe jamais de yàlla dogal na président la république Macky Sall suñu diggante weesu na politique moo tax wax dëgg yàlla kum ñu joxoñ ñun kooku la ñu xool su jëloon bi ne ñu ñun kii laa joxoñ su boobaa ñun kooku la ñu xool te comme yàlla dogal na comme yàlla dogal na joxoñ nañu premier ministre Amadou Ba incha allahu rabi SDD yoonu ya naataange moom la ñu jàppale incha allah pour qu'au soir du 25 ñu gagner dès le premier tour incha allahu rabi merci beaucoup merci merci merci merci loolu dafa am solo lool waaye élection élection élection kenn du ko gagner ci caaxaan noo leen tey noonu laa leen demander ngeen gën man fu ma leen woo ngeen wuy si donc wax dëgg yàlla maa ngi leen di wax la jeunesse est-ce que pare ngeen pour le combat jigéen ñi jigéen ñi jigéen ñi jigéen ñi ñu ngi leen di laaj ndax pare ngeen ñu ngi laaj ñu ngi laaj waa SDD yoonu naataange ñu nga xam ñu ngi Casamance est-ce que Alpare merci beaucoup jërëjëf jërëjëf alabarka jërëjëf jërëjëf dama bëgg lu ma bëgg lu ma bëgg lu ma bëgg mooy yéen ñëpp ngeen jóg taxaw ne président Macky Sall président Macky Sall président Macky Sall président Macky Sall président Macky Sall président Macky Sall jërëjëf président Macky Sall jërëjëf président Macky Sall jërëjëf te ñu ngi koy sargal bu baax a baax a baax pour lépp lu nga xam ne defal na ko réew mii di Sénégal Sénégal mënuñ ko fay wax dëgg yàlla jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf maa leen gën a kontaan maa leen gën a kontaan munu ma terminer munu ma terminé te du ma féliciter ak remercier les maam di bureau politique di parti S2D yoonu naataange seen taxawaay rafet na ñi ngi félicité également les coordonnateurs départementaux ñëpp gis neen ñëpp gis neen parrainage bi parrainage bi ñun parrainage citoyen la ñu def en 51 jours nous avons réussi à collecter plus de 223 000 parrainages citoyens loolu nag loolu nag loolu nag ku mu doyul xawma lu lay doy te jamono ji suñ siège SDD ñu nga faak plus de quatre-vingt mille parrainage donc loolu loolu su amee su amee du sama njàmbaar du sama kàttan parce que man feyu ma leen dara da ngeen ma bëgg loolu su amee loolu ñun xam ne ne la hawla wala quwwata illa billah amuñ kattan amuñ man-man yàlla subhaanahu wa la donc ñu ngi ko koy santé waaye di leen gërëm yéen ñii di militant parti S2D yoonu wax dëgg yàlla kontaan naa kontaan naa lool te gën leen déterminé wu gën leen préparé wu nous avons assisté à tous les combats merci lu may wax c'est important fii Sénégal Sénégal Sénégal ñëpp xam ne ne bu affaire yi bu affaire yi tàngee ñëpp daw ñun dañoo taxaw dañoo taxaw dañoo taxaw musuñu daw merci beaucoup merci jërëjëf merci merci merci lu may wax dafa am solo ñun parti SDD yoonu naataange yàlla dogal na bu affaire yi méttee dëgg ah ñu bëri daw leen de waaye ñun musuñ daw dañoo mus a taxaw parce que ñun lu ñu gëm mooy que population bi soo àndee ñoom lan ngay ragal doo ragal dara moo tax waa Kër Massar defoon naa fa doxantu de 16 heures à 2 heures du matin ma demoon naa ni ataaya à ñaari tali demoon naa naa ni café golf demoon naa ni café à Darou Khan localité yu nga xam ne demaguma fa waa parcelle préparé leen dinaa ñëw naan si café waa Médina préparé leen dinaa naan si ataaya waa Podor dinaa ñëw insha allahu rabi waa Matam dinaa ñëw dinaa ñëw ñu naan ataaya waxtaan merci merci merci merci merci merci beaucoup merci beaucoup merci merci jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf xam naa ne premier ministre jóge ak ñu mu àndal gudd na ngeen jéggal ñu waaye wax dëgg yàlla tey fête la pour suñu parti SDD yoonu naataange c'était pas évident en cinq ans ñu am lu xam ne si réew mi yëpp la loolu dañ koy santé yàlla bu baax leen di ñaax ngeen gën a taxaw jënd carte de membre yi ngeen continuer di installer les cellules de base du parti di préparer wu pour élection présidentielle de 2024 nga xam ne incha allahu rabi ñun ñëpp ñu engagé wu ñu gagné dès le premier tour donc kontaan naa lool albarka alma kayro si yàlla merci beaucoup jokko njal jokko njal a baax alabarka alabarka alabarka alabarka xam naa dañu jox cadeau bu nga xam ne moom la ñu président la république Macky Sall ñu jox ko premier ministre Amadou Ba de la coalition Benno Bokk Yaakaar maa leen di gërëm di leen sant bu baax jërë jëf merci beaucoup Sénégalais des gens du parti cadeau bi nag c'est les jeunes du parti ñoom ñoo ko jox le président Souleymane Ndiaye en tout cas toutes nos félicitations encore une fois